ne yéen waxtaan wu leen amal njëriñ adduna amal leen njëriñ àllaxira tukkee ci alamin ndax wax lu mu bari bari bari bari tukkewul ci yàlla day gëlëmal ab julit di koy jox njàqare ak naqar ay julit ngeen war leen a wax li yàlla bëgg ak lim bañ war leen a wax li dagan ak li araam ala kulli moo war a am ndax ba yàlla ne ubudu rabbukum utikum bi taqwala asim ko moo tax mu wax leen ko doomu aadama nag jaamukatu yàlla la waaye tooñkatu yàlla la ndax yàlla ne lii laa bëgg yéen ngeen lii ngeen bëgg li yàlla bëgg moo gën li yéen bëgg li ngeen bëgg bokkut ak li yàlla bëgg kon doomu aadama balaa am njariñ rek àdduna ak alaxira bëgg li yàlla bëgg noo tàmbaliwaat ko nag ni leen xamal ni lu araam du baax fii du baax fa jëm araam nag yéen xamu leen ko ndax doomu aadama day def lu ko neex mu ni dagan na lu ko naqari mu ne araam nañu dugal ci biir lislaam nag doomi araam maxalin ko ca band ba létt ràññiwuñu ko nan la war a demee doomi araam dama dégg ñu ni ku biireel jigéen te kooko doomi araam la alxuraan yàlla ni man d'accorduma de bala ngeen di xam doomi araam da ngeen di xam jabar ju araam ñeenti jabar islam dàq na ko bu ni nekk oustaz sekk nee na kenn warut a takk ñeenti jabar ñeenti jabar ban jabar màggat ak na koy xujaag anta anta sama jabar màggat sama jabar ndeela sama jabar yaasin sama jabar ma takkaliñ ci alxuraan ci sóor nisaa yi soo weesoo laan weesu laa ilaaha illallaah weesu malaayka ci songu sóor nisaa yi aaya ba takk ko yaayu annaas ittaqu rabbakum li si xalaxakum min nafsin waahidin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaan wattaqullaaha li si tas'aluuna bihi wal arham innal laaha kaana lakum raqiiban alxuraan di ko jàng jamono di ko jàng tàmbalee jamono ndax lammiñ wu bar bokkut ak lammiñ wu yéex doomu aadama nag ñoom am na ci ñu xam araf yi alxuraan am na ñu koo xamut am na ñoo xam ne loo xaw a wax rek xaw nañu koo xam loo junjut xam nañu ko alxuraan nee noonu la jabar di dagane yéen nag seen jabar bu dagan mooy lan dem ca jàkka ja xutba daa di maye ñu ni may nañu muudu anta may nañu ablaay yaasin loolu du tax jabar dagan yàlla ba mu ne yaay wàllu si na amano laa taqrabu oo bu leen jege si naa njaaloo booba la tere woon góor jox jigéen loxo. Sénégal na ñoom passé na ñu joxoon te loxo bëgg nañu daal bala ñoo takk ñam ren ba déwén wala ñu ñam yaari weer loolu musiba lay jur ndax jigéen boo nee am naa doomi araam mooy nan takk nga jigéen xam ko ba noppi boo ci juree doom ba juróom-ñeenti doom doomi araam la. téere bi ko wax man waxuma seen baay waxut ki bind sama baay bind seen baay moo ko wax yàlla moo ñu jigéen kenn du ko xam door koo takk. moo ne kenn du ko biiral takk Sénégal na dugal nañ ci jabar yett moo tax sëy yi dootu dagan xam jigéen takk ko araam na biiral jigéen mu biir ëmb yetti nga takk ko lislaam sib na ko yàlla nee na ku biiral jigéen mu biir ëmb yetti weer nga takk ndaw si ci kaw biir bokk nga ci jumlu bi arab ji dal kufri bi lay weddi nga yàlla nga biiral jigéen mu biir ëmb yetti weer nga takk ndaw si bu ko te nga biiral jigéen mu wasin juróom yenti weer ba ko fukkeen wasin am doom ñun nañu ko may lislaam day bañ jigéen ju am yaar di su ko maye jigéen ju am deret di tuur deret duñu ñu ko maye jigéen ju ëmb biir du ñu ko maye jigéen ju am régal du ñu ko maye alxuraan da ko dàq yenn dàqu leen dara ndax li leen neex baax li leen neex baaxut ana noo koy mën a xamee jigéen bu ëmbee yetti weer bala nga koo maye na wasin tuur deretam ba deretam jeex ñu door ko maye la alxuraan wax yenn ndaw si day ëmb ngeen nëbb ko dane nañu ko ko may ginnaaw bëgg na bëgg na ko nañ ko ko may yàlla nee na sama mer la dinaa lakk ndaw si sawara lakk waa ji sawara lakk doom ji la raaf yéen a ngeen tuddaat doomi aram ba tey ñu gindi leen ci am nga ñeenti jabar ñeenti jabar yi màggat aaye nogoy toog yaasin anta màggat am ñaari fan màggat fégal nga dugg néeg anta anta ay ñaari fan nga sàcc ayu anta dem néeg nogoy te dëgg moom tayru fo la doomi aram ne ay gi nga sàcc jox beneen jabar taayiwut moom lañ tudde doomi aram ngeen dal ko tudde nag biiral jigéen joo teg ko doomi aram la déedéet na nga ko déglu bu baax du max lu ñuy weddi wala lu ñuy xóot lu tax loolu alxuraan laay wax yàlla dafa wax ni su amee ñaari jabar sa mbubb wékk ca benn néeba tey ndaw sa wékk ca mbuuma mbuma ca néegam aayewut da ngay wax sa jabar ni ko demal indil mu mbuma ca néeg sàngam mu dem indi la ko boo fa duggee alxuraan ne ba la ndaw si songee ni la maa la na man ay wu ma waaye dama laa na man nga tëdd ndaw si te ay wut bu ca doom juddoo doomi aram la du dem àjjana du dem sawara yéen ko wax ngeen mer danga naa maa takk ñëpp samay jabar lañu Ousmane bun Affan Omar bun Xataab boobu ku mas na ñoo toog fikram rasulullah yonent bi toog ba yàgg mu ni Ousmane ana Aysatu mu nu kay satu day dafa dem Lansaar ana Xadijatu mu ni ko ma fa mu ni ko lu tax nu tuugoo faak moom mu ni ko ah, dafa ayewul de ñàkk ay ji mu ayewul nag moo tax ma bàyyi ko fi dikk ci pénc mi ndax su ma toogee moom wax ak man baree bànneexu ci toog gi ma toog ak moom am naa bakkaar te bu ma dee mën nañ ma cey saab ne bi ñu quoi daf nga dëgg de jigéen bu wut doo ko taayaloo senegal nag moom dañuy manifeste ñoom manifeste bi bakkaar lay jur jigéen aayewut nga dali ko jox ni ko taayal ma xanaa ki aaye mënoo ko jox mu attaaya ginnaaw xiim xiim la kay benn la waaye nag dañoo réer réer gi ñu bañ ku leen gindi nag moo tax boo leen gindee du ñu ko nangoo dégg du ñu ko teg ci rajo yi du ñu ko teg ci télé yi du ñu ko teg fenn ndax Sénégal genn wàll gépp ñu ngi ci kamatu irkan xam-xamu kan nag yàlla ne bàkkaar la bu borom faatoo dem sawara te dégg naa Sénégal ku dee ñu ne àjjana àjjana am na borom yàlla moo ko moom nanguwu leen loolu nag ndax yàlla ne àjjana maa ko moom xaw ma man xaw ma tiijaan xaw ma ku ma ragal dama jana ku ma tooñ ma tabal sawara seetal Cheikh Mat Mamba ilimaan yu góor yi li mu daj ci diine jaamu yàlla abatumi atum xabla irachin alfunaada moo la yow mabdala bàyyi sama sëriñ Sidi Mbakke wal islam bi taawu seen Abdullah jëwriñu seen Saali Mbakke ilimaan yi Tuubaa di leen Seex Xaadimu Rasuul yéen ngeen di jullit ba noppi nangu leen loolu kon de musiba dal na leen yàlla dañ ni damaa bëgg bala ngeen may jaamu li ma wax ngeen xam ko li ma tere ngeen xam ko li ma dégli ngeen xam ko li ma bëgg xam ko bu ngeen demul ci alxuraan du ngeen ko xam te Sénégal moom paak bare alxuraan daas nañu ko doomi muri doomi tiijaan doomi xaadir doomi laayeen cene ba cene ba bàyyi laay bàyyi faal am doom tudde Malick Serigne Bamba limaamu laay nga fab sa doom dugal école góori elaw jigéen elaw ëllëg ndaw labbe juddoo hôpital yaro école magge cinéma dëgër bopp bari bakkaar ñàkk teggim sikki tali geen a fos borom ma ñu faatiya sàcc lay doon mbaa doxankat su faatoo du dem àjjana fokk ñuy sàpp ko ngeen ni julli ngeen ba nu prey alxuraan yàlla ni bala ngeen di jàmm yàlla xam leen alxuraan xam leen ci alxuraan li ma bëgg ak li ma bañ taarifoon xabla in taabudoon innam yaarifoon fa kayfa taabudoon yéen a teg fële alxuraan góor yi elaw jigéen elaw Sénégal ko su bàyyi mën ci kaamilu alxuraan yaa dàq mariage te dégg naa ñu naan mariage moom day dàq koor dàquruma man mariage du dàq koor peeru mariage bi nga jënd muy kaamilu iblis nga toog di ko mariage mën ngaa jënd téereb Alaaji Maalik lax lëriyu risaala arul ak bayaan ak fiq ak xilaas saab juurtu kamal boo dee xool alxuraan xool gi nga koy xool leeru alxuraan gi jóge ci alxuraan dugg say bët mooy tax boo koy xool doo wànnent doo gumba doo silmaxa soo dekkee bar sax leeru alxuraan mooy ne ci say bët mel li mu yari oto waaye Sénégal moom am na ponkal yoo xam ni bàyyi sikkim gudd kaala rëy kurus duñu yor téereb Alaaji Malik duñu yor téereb Sëñ Bamba duñu yor téereb Seex Saadibu duñu yor téereb benn waaju baax ñu nga ca journal ya ñu nga ca soleil ya ñu nga ca kayit yëpp ku nekk di xool di xool di ree alxuraan ko gën moo tax sunu borom ñi leen bu ngeen bëggee si ci man da ngeen alxuraan ana xuraanul karim allamahu te allamahu xuraan yàlla nee na ku jàngal xuraan di ko jàngale yaa ma gënal ki ko jàngut yaa ma gënal ki ko dégluwut moo tax alxuraan sëñ Tuubaa mi nga xam ne bii moo ko suturaal dara jàll ko moog waa naw amuñu nawle amuñu morom moo tax sëñ Tuubaa ni ci biir alxuraan kitaabun karimun min karimin mu karaman la min karimin naw sar wal xarba ci li rabbin xaforin sëñ tubaa dani segal naa alxuraan fam naa diw gi def ko samay xasaay kitaabu te xaayimatil maqaama say xel mu rabbi yaay bul maqaama sëñ tubaa ne ko jàng benn bëyit am nga maqaamam jàng aayab mbaa nga jàng isib mbaa nga jàng roba mbaa nga jàng saar Sénégal na ñoom na nga ne ñoo jënd journal 1000 francs 800 francs 200 francs 300 kër goo dem da nga fa fekk juróom benn Sénégal ñoo réer ana lu leen réeral doo dugg ci kër fekk ci kaw taabal kaamil kër goo dugg fekk fa tele bu jar ñeenti ñeen ñeenti junni mbaa juróom-benn junni mbaa fukki junni te doo gis téereb Alaaji Malik bu jar deux cent francs trois cent francs téereb Sëñ Tuubaa muxaddimaat doo ko fekk ci benn néeg lu néegu waaju baax wala taalibe piir wala mu xaddam piir waaye dañuy fa bande tegale ca kaw bandu coon sek bandu jaal mbaay kiim ne laam ku ne ñu teg bandam du ñu teg bandu mbay donde bu ñu teg bandu falu njaay du ñu teg benn band nga gis ndigéen joo xam ni day dem ci jaaykatu band ba jënd ñaar fukki band te boo xoolee taabalam doo fekk téereb Alaaji Maalik jigéen war naa jàng góor war naa jàng téereb Alaaji Maalik jënd ko kay téewul nga jënd band téereb Baay Ñas jënd ko téewul nga jënd band téereb téereb Limaamu Laay jënd ko téewul nga jënd band band moom allah yàlla dani bu leen yàq seen adduna ba seen adduna yàqu annaka tay sabadan na ngeen defar seen adduna ba mel ni du ngeen dee defar seen adla àllaxira ba mel ni suba ngeen di dee loolu kay boo ko waxee borom xam-xam yi war koo xam waaye foog sa adduna defar ko rek fàtte àllaxira yomal xam si lay jur moo tax julit yi bala ñoom jàmm dañu fab alxuraan teg ko ca kaw ni ko sëñ Tuubaa def ak waa këram xool sëñ Abdullah roi de l'islam mi nga xam mooy magi sëñ Saaliu Mbakke ilimaan yi ñi borom baatul islam bi borom baaturus bi bu fi nekkan ba nëgëni Sénégal ku ne leen xoj mel ni ban talmet man nag xam naa ni man ah Abdou Diouf man bëgg naa ko bëgg koo xam ni su doon teni mën naa ko am bis bu ne ma jox ko loxoom ndax dama ko bëgg ba tudde ko doom nit ku ñuul boo ko bëggee lan koy tudde sa deret lay doon mbaa sa jëmm dana ca bég waaye nag doo ko ko feeñale pour defe ni da nga cay commerce man tudd naa Sëñ Bamba doom tuddi naa Jumaa bi doom tuddi ku baax ku ne doom tuddi Suleymaan doom man samay doom maa leen moom du ma ko tuddi bëgg cam xar wala aw bëy wala ma bëgg ci digga maam rob bu ma jox wala ma bëgg càmbaloŋ bu ma jox sama doom maa ko moom waaye ku jur sa doom kay bu leen xët sax tuddi ko mbindi waaw man maamu sama doom ku ma laa ko tuddi kii xam ne bii mooy Talla Diagne nag fas naa yi ne feeg déwén ba déwén jéeg su ma amee doom bu góor moo moom tur wi ndax man samay doom maa leen jur maa takk seen ndey su ma neexee jur sama doom bu nuppi tudde ko kaña loo si man kon nag ku ma neex tudde sama doom yéen da ngeen di font rek waaye dinaa wax dëgg goo xam ne bu ngeen di déggee xam ni dëgg la mu del si waate yéen naka ngeen di doonee jullit di wax lislaam day bañ aram di naan sangara di tox póon di dem seen jabari morom te ku dee ngeen ne àjjana lay dem àjjanam na borom yéen a ngeen ni jullit ngeen lu ma neex laay def dinaa dem àjjana sëñ Tuubaa mi raw ñi nee na no mu ko Mbàkke mu ko ku ngeen seen mu jëm si Touba ñu daa bëgg a demaat te nangu lay jàmm yàlla bu ngeen ko doole dëpp leen ko ceer mu ko Mbàkke mu ko Touba gii yàlla jox na ma ko ci dëgg am na ko ci dëgg ku nekkul ci dëgg yéen nga di fi ñëw aar naa la baat baatin aar naa la seen araba kullu mën la woon saqaam ilay soli tilaaw ceer mu ko Mbàkke mu ko dama am ma moo xam ne ku war a demaat jana ànd ak man boo di kéem li ma bëgg ngay def li ma tere ngay ba yéen nag nangu leen loolu da ngeen bëgg di julli dégg naa ñu naan ko du julli ku dul woor de yàlla waxut waylun laa salaatu yàlla de lu waylun lil musallin la siina um am salaatim lu tax loolu julli gi ngeen di julli wax naa ko ca band bu njëkk ba waaye dama koy waxaat ndax wolof dañ ni looy ne bu mokkee doomaa de man ko jëriñoo nafar ko julli dafa am sart dama leen noonu ca julli ca band bu njëkk ba julli day amoon jàpp léegi nag du ngeen jàpp du ngeen sangu jana ba soo julli waalee jana ba yàlla bëggul jana ba nag yett la yett yan da ngay tëdd ak sa soxna ba bët set am na jana ba naam waaye mu jana ba ndax yàlla nee na yett ko def dugga dugg àjjana ñu ne ko yettaan mu ne ko takk jabar am ca benn doom bu dagan muy góor ñaari doom yu dagan muy góor ñetti doom yu dagan muy góor ñeenti doom yu dagan muy góor yàlla ne tëj naa sawara ngir yow doo ca dem yàlla ne ko takk jabar bu dagan mu nga am ca doom bu jigéen doon benn doom bu jigéen ñaari doomu jigéen ñetti doomu jigéen ñeenti doomu jigéen yàlla ne du lakk ndaw sa sawara du ma lakk wàcce sawara doom yi daan demal ñu ni ko lu tax mu ne ñuy def loolu ñu dundal diine waaye xam nga ni ku am ñeenti doom yu góor ci jigéen ñeenti doom ya doom ñu jub ñu takk ay jabar doom ñu jub am ay doom doom yooyu takk jabar doom ñu jub am ay doom d'islam du dee adduna du yàqu waaye léegi Sénégal a ngi kër goo dugg biiral nga fa ngañ biiral na yaasin ñu naa biiral amul solo di am na solo ba dee yàlla ni bu leen laalante yàlla ni bëgguma nga jox jigéen loxo joo tëkkut yow yéen bëgg ba la ngeen a takk ñam mu biir loolu kay musiba la ci yéen te biiral kat kenn ko jëkk a def muy kan abi soxmata doomi omar bun xataab moo jëkk a biiral jigéen bu ñax jaariyatu ba mu ko biiralee omar bun xataab dafa toog ba jant bi dem yoor yoor mu dem ibaadu diine yi ci buntu càkk ja di wat islam def mitingul islam fekk yonent dem na bam ñaati yonent bi dem na ba am fanweeraat yu manqué yett Omar toog ci jal bi fukki at juróom-ñaar waaw ndax boobu kirim toog na dem Ousmane toog dem Ousmane dafa toog ñetti fan ba ko ñeenteel mu dem di wisiti waa kër yonent bi ci la ñu reyee Ousmane ndax dañu noon ginnaaw rasulullah min mar as sawja bay na yaraaka ginnaaw rasulullah dem na waa këram bu leen kenn xool bu leen kenn wisit ndax aram na bépp góor Ousmane la yërëm leen wut tàndarma ak meewum gëléem dégg nga maam ak warga arab xiim ko di leen ko yóbbu jant bay fenk jëwkat ba dal koy gis moo tax jëw araam te Sénégal ñoo mën a jëw mu dal di xool Ousmane seen mu dugg ca xayma ya daal di fab nag war nga wax xelil ko jën di la jox kenn ku ne benn kaas moom da leen di bëggal ngir ñool makk waaye ñoom daal di dañoo defe woon ne Ousmane da leen a soxla te waaju baax yonent walil xutaab abidin xut bu samaan soxnaam aram na ku yàlla bind moo tax ku yàlla bind wër laa bëgg soxnaam waruloo koo tudd moo tax ponkali ni ci biir kër sëriñ si doon ay góor di xool jabari sëriñ yi musiba dal na leen adduna dal leen alaxira jabari sëriñ sëriñ la doomi sëriñ sëriñ la dallu sëriñ sëriñ la waaye duñ ko defe noonu dañ naan sëñ bi Mm, xam naa ko bu baax sama kanam la doone gone sëñ bi bu doone sa kanam gone jaan mën naa ne sa kanam di gone waaye bu màgg ba day ni bàyyim bu la màttee la ñu lugg bàyyi bu la ñu koy lugg mbaa nga dem alaxira gaynde mën naa ne fi kanam baayam ne fi sa kanam di gaynde gu ndaw ba màgg waaye bis bu day ni baayam su mere bu la dóoree na lay dóoree noonu la la bàyyam di dóoree yooyu kontut da ngeen a xamatul waa ju baax yéen ko son bu bu ngeen xam ku oto ku rëy biir réyëb sikkim nag taxut a baax réyëb sikkim bu taxana baax dëkk boo yendu bay cuulul mooy seen kilifa waaw réy biir bu taxana baax dëkk boo yendu mbaam moo gis dégg maam wala xabban mooy doon kilifa gam yéen xam yu leen ko noonu xoolal wax Cheikh Mat Bamba mi nga xam ne bii mu sóoru boor wër na koll bi juróom-ñaar yoon muy limaani góor ñu bar sàq nee na aw ma nawle fii aw ma nawle fu nu jëm ceerno mu ne ko mbakke mu ne ko jaay nañu màjjana tay la nañu yàlla fab saa yàlla borom fam na bakkanu doomu aadama yi bën na ab jaaro murit bi tiijaan bi xaadir bi laayin bi képp ko wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah bën na sa bakkan takk ca jaar def ci buum soxma fii ci Tuubaa ma yor ñu ni ko bind ko mu ni simaamul wara asri la dalay filie di wamaarum too min malikin xaari bi dani ñu ni ko mën nga ko firi mu ni waaw waaw ndax oustaz Seck moom man na ko mu ni waaw waaw létt kay koo man war a mën a firi simaamul wara na su bindaa fon yi yàlla bënn seen bakkan përit ba mu bënn mu def ca jaaro takk ca buum filiet di yàlla jox ma nas ba li ma jàppal ma jàpp nas ba di wamat mel ni gëléem gu topp ci dëgg xaada maa ngi wamat bil ani soo bañee ñëw da ngay fekk sa bakkan waaye imaamu xaddim ku yàlla bi bind maay siilimaan ñu ne ko boo ko waxee te bindoo ko duñ ko mën a xam mu ne xam ngeen ko imaam bi la siib seeritani xaadiman lahoo bi nasmin wa nasrin walti naari bi xal ba ñu ne ko loolu mooy kan mu ne inna salaatu kullu taqwa kuy julli di ragal yàlla yegg sa borom inna imaamu xaddim maay si njiit ñi ma doone xaddim ñi laa doone si njiit ñu ne ko bind ko mu ni imaam bi la sii seeritani xaadiman lahoo bi nasmin wa nasrin walti naari bi xal ba ñu ne ko yow kay xanaa boo dee njiit itam njiitu mur yi nga war a doon sëñ tubaa nii déedéet rabbul masri xëy ni rabbul masri bay ni fajante way fenkem ba fa muy soye yàlla defal ma ñaari jumaa juma njaarim juma Touba jumaa ja nekk Makka ja nekk Madina moom lañ mar a fàttalal Sénégal muy jumaay Touba ak jumaay njaarim ku yàlla bi ni maay silimaan maay sëriñam murit maay sëriñub Tiijaan maay sëriñub Xaadir maay sëriñub Laayeen sëriñub Cenaba Cenaba sëriñub Baay Laay sëriñub Baay Fall Ibrahima Fall mi nga xam ne bile sëñ Tuubaa nee na yomal xam la ko bar balaa kenn damaa janam Seera Fall dem janaa waa këram ñu ni ko bind ku ma ni laan Ibrahima Fall laa yu daamu yomal xamati bi laa malaam band bu jëkk ba sax damaa dajeeg benn Baay Fall ñu di ñu di ko wax mbay juuf mu ni ma salaamaaleykum daal di ni ñaar fukki dem jox ma ni ma aleykum salaam ma ne ko aleykum salaam mu ni ma ah man de sëñ bi damay bàyyi faal te damaa dégg ci sa bande bu jàll ba ma dégg nga wax di tudd bàyyi fall ma ne ko waaw man damay xulóol islam saa bu ma xee rek maa ngi xulóol diine xam ne leen man réew ma sikkim réew ma biir te senegal moom boo réew tëb sikkim réew biir koo dajeel doo la def ngay dara xanaa xamu leen ni Sénégal bu su mbubu réew nga toog langa ko mbubam tuuti yow mi sa mbubu rëy boo doxatee borom mbumu tur mi lañ koy jiiñ moo tax Sénégal mbumu rëy rek lañ bëgg xamuñu waa ju baax man na yooyu duma ci fekk man mu ne ma jàkk ni ma kon nag dama lay laaj waaw loo tuddee bàyyi Fall ma ne ko sëñ Touba dañuy Cheikh Ibra Fall waa këram ku leen di nga dem sawara ñu ne ko lu tax sëñ ni Ibra Fall xam na ma xam naa ko te man kat am na histoire boobu boo ko waxee ci band bi am na naa féq ba bu ko déggee dana ko weddi Ibrahima mooy Rasulullah mu ni waaw ma ni ko lay moo tax ñu bind jant beeg weer yi mu ne ma waaw ma ne Kibraay moom moo mee nag mooy maami Rasulullah li tax maami Rasulullah moo jur Ismaïla Ismaïla ñu maami Rasulullah Ibrahima moo mee nag moo bàyyi ko ci boromam ni yàlla damaa bëgg nga may ma ma delluwaat jamono su ma demee jamono dinaa seet dégg nga maam sëñ Bamba ba gis ko ma feeñ di Ibrahima sëñ Bamba di Rasulullah loolu nag boo ko waxee ko xam ne du muri du ko mën a dégg ndax wéree ci moom sëñ Tuubaa ni ko yàlla yonent bi ni ko ko nag demal. ma ne ko waaw kon nag Ibra Faal a ngoog waaye Ibra Faal mi nga xam ne bile mooy baabul muridiin Baye Moustapha Fall Fallu Fall maami Cheikh Fall maami Modou Ablaye Fall généralu Paalin rek moo daminte Serigne moo daminte mi nga xam ne bii mooy Cheikh Raw Fall mu sotti Cheikh Ndigal mi nga xam ne bii mooy Cheikh Raw Fall mu sotti ndax dañoo wax ni sa tey doonu maam maamay maam sa tey doonu maam waaw rasulullah ba sëñ tubaa ne bi mooy donn maam ji sëñ tubaa kay ab sëttama ko war a donn Seex Ibra Faal sëttama ko war a donn sibti ka sibti rasulullah ay soba daa man kar la min kir la tori daa moo tax Seex Ibra Faal baatinam mi ngi ciy sëtam sëñ tubaa baatinam mi ngi ciy doomam waaye baatin bu biir ba ma ngi ciy sëtam ndax miim aadama dellu miim deel waaye nag bu nu ko defee noonu doomu aadama dañuy gëlëm nu del si waate yéen si histoire waaxul samaan waaw da ngeen dégg di wax naan lëggéeyam ndey añab doom waaw waaw liggéeyam day añam doom moo tax bu sa ndey nga gondu bu subaa dana baax bu sa ndey liggéeyoo gondu woo musiba dal la ana nu mu war a demee dafa am ñetti doom yu bokk bàyyi muy kan sëñ ma samba saar waaw ak sëriñ kar saar ak sëriñ iliman saar kenn ku ne seero fal tibal leen sëñ tubaa tibal leen ñu tibbi ci dari sëñ bay saar ñu dëkk ceerenu njaañ bu ko tëg sëñ bokkut ak ñetti doom yi baay yi bokk benn baay muy kan saabiru ak basiiru ak naawiru muy ñetti doom ñu bokk benn ndey bokk benn baay bañ bokkee benn ndey bokk benn baay kii moom daa juddu am mbaam kii juddu am fas kii juddu am ñaari jabar ak ay doom bañu tooge ba yàgg bam lu war a mat ay fanweeri at ay ñeen fukki at ñoom ñett ñu toog jaaxle kenn ka mag ji man de waay waaru naa mu naa mu ne ko man dal am naa lu ma naqari lool mu ne ko ah lu tax mu ne ko man fas rek la am naa ñeen fukki at ñett awma jabar bëgg naa jabar bëgg naa doom kenn ka ne ko ah man de damaa jaaxle man xoolal suñu rakk ñi nga mooy suñu caatum baay moom day jaaxle naa ci moom moom am na ñaari jabar ngént na yaari yoon jabar ji mu takk bu yëggut la koy ngénte li tax doomu aadama di kuute tàmmorom ja foofu la jóge kenn ka ne ko waaw nu ñuy def mu ne ko dañ ko war a rey nangu jabar yeeg doom yeeg alal yi mu ne ko déet nan waxtaan kenn ku ne bu seen liggéey nga gontu di nga fayu léegi nan dem laaj ko mu ne nu koy laaj mu ne nan dem bu ñu demee dañu koy laaj ba xam moom fu mu jëlee alalam ji ak nu mu def ba am ko ndax nu noo bokk ndey ak moom ak baay léegi nag bu nu ko waxee noo xam ne ñuy def ba mën a am alal wala moo xam ne mu def ba dimilinu ñu ne nan dem ñu daal di kini salaamaaleykum seen rakk jooju muy seen caatum mbaay seen caatum ndey maaleykum salaam ñu dugg mu ne ah tey dam naa gan yooyu musuma ko am daal di ubbi frigidaire bi waaw daal di leen di jox boisson ñu naan mu dindi mburu arab jox leen ñu naan ñu lekk mu daal di tàng ndox mu seet di jox leen taal attaay gars yi ne ko anoon ko duñu attaay dañuy dem dañu am daal lu naqari dikk nañ ci ngeen tel waaye yaari ñaari naqaran topp mu leen ban naqar kenn ku ne ko man daal damaa am mbaam rek fu ma bëgg ci du ma ko man am fu ma dem rek. ñu di ma teral waaye bu ñaan jabar de ziar ñu ne ma doom jabar lool nag nag xëri na ma lool mu ne ko ah loolu daal man munu maa xam lu mu doon waaw loo ci bëgg nag mu ne ko damaa bëgg daal laaj ba xam yow noo def ba am mu ne ko ah, may da xaw ma def ba am samalal ji kenn ke ne ko waaw yow man nag dama am fas rek munu maa passé fas ma di laaj nag ba xam nu may def man ba sama fas yu ma yor ma weesu ko munu am jabar te man am naa war na ma am jabar am naa ñeen fukki at ak ñett munu ma jabar kenn ka borom xaalis bi ni ko ah teenoo toog ba ca kanam dem laaj ko sunu yaay mu ni aywa ñu toog ba ca kanam ànd ak ñoom daal di dem laaj ko seen yaay bañ ne jaañ yaay ji naa doom am naa sama doom yooyu da bëgg naa leen a gis daal di ni doom ji borom alal ji daal di dindi dégg mam maam ab sir lal ko ni ko toogal xam nga borom teraanga ku yàlla teral daa bëgg ko teg ku yàlla teralu bu la yàlla teralee foo jëm am teraanga bu la yàlla teralee ku la bëgg a toroxal non rekk la demee toroxal torox non rek la demee doomu aadama dañ ko xamee noonu waaye nit ku ñuul kañaan dafa bari al usul lay sul aj kañaan du sange moo tax nit boo ko iñaaneew melam yàlla ne dama koy taaj sa kan rek mu jëm kaw di biir bëri ndax saa bu tàkki bu bëgg a fay ma tibb matt sànni ca mu tàkk sab xol di tàng te boo faatoo dem sawara am naa sama baay bu ndaw ñu di ko wax Ousseynou Seck moog sama baay boo ko xeetu baay daana wax ci rajo bi kañaan day lakk ab xol kañaan day yàq ab kañaan day yàq lislaam kañaan day tax mu nit dee dem sawara alxuraan indi ko nag ne al usul lay usul moo tax sama band bi am na ñoo xam dañ ko dégg naan ustaad sekk bandam bi waru koo wax waruma ko wax yow mi war a wax demal wax rajo baa ngi nii waaw murid ak tijaan yi ku ne bëgg nga bëgg na ko wax loo xam lu jariñ doomu aadama ginnaaw yéen jàng naa wax li ma xam ci lislaam tu xulal yàlla ak lislaam ndax yéen lu max ci band bi mboolem lu max rek def ngeen ko yàlla yéen xaalis car ne li ngeen reyante seen jabari morom lu ne def lu bon ci nu def ngeen ko ci seen jabari morom attan ngeen ko tëdde seen jabari mag seen jabari nijaay seen jabari xarit seen jabari baay sax doomu aadama yi attan nañ koo tëdde ndax gis naa ko rey baayam nangu jabaram gis naa ko rey doomam nangu jabaram gis naa doom di toxan jabari baay gis naa baay di toxan jabari doom Sénégal monsieur ba fiam moo tax bu sëñ Tuubaa yeexee allah jimal yéex ñëppay dem sawara waaye nag nan dem ba ca yàlla nee na di ngeen jant boo xam ne bii seen jant bopp lay doon kon nu ñu def ca borom fas ak borom mbaam nan ci yeggale ñaari bunte ci des borom mbaam ni yaay mu ne mu ne man dama am mbaam rek mënuma koo weesu tam naa lu ma naqari bëgg naa jabar maa ngi ci ñeen fukki at ak mu ne ko a ah, doom xanaa nu toog ba ca kanam nu dem laaj ko sa baay waaw moo tax liggéeyam doom añ liggéeyam day añam doom dëggu na ana nu mu demee xoolal muus muus saa bu ko jëkkër ji bëggee sàkke ru ne ñu ko tëb geer gu ne daañu ko tëb buntu ba ne daañu ko burumlu waaw muus bañ rek ne ko man yaa ma tax a jóg dàq ko ba dab ko rek nga ko ne ko tey ma rey la muus door na sëy moo tax ku sa ndey nangu di nga am ndam ku sa ndey gantu di nga am toroxte fii toroxte fa nu jëm looy yaakaar mu tas si coono ngay deem te boo faatoo du am lislam te ko mu lislam boo faatoo dem sawara waaw xoolal mbaam mbaam bala ko dëkkal ji sëy dana ko dóor ay wexi dënn ba muy bëgg a dee xoolal xaj balaa tëdd jabaram lu ne dana ko ko def xaj bu ne jalañ jabar ji taxaw mu taxaw day xew rek jabar ji daal di tëdd mu war ci koom xoolal kinaara kinaara siiru du ko jàpp xoolal ganaar ganaar bala nga ko jàpp dégg nga maam jabar ji tëdd moom sàkk nu daañu ko naaw mburu lu daañu ko wërunglu moo tax liggéeyam ndey añab doom yéen xam wu leen ko noonu da ngeen naa takk naa jabar jaba ji rafet na mën naa rafet waaye rafet taar ba taar taar bu bari jikko ju rafet ku moo tax ñu ni jigéen ñàkkutub daaguwaale yéen xam yu leen ko noonu jigéen daal bu xeesalee ba mel ni golo gu ngas di lër lëri ñun daal c'est rafet waaw ñoom te man seen xeesal damaa jaaxal ñoom lu ñu xees xees seen taari day mel ni jaay këtu këriñ buy door a wàcc man xeesal loolu la ma jaaxale man na mun a xari ma man dama am benn jabar muy xeesal ñii ko wax aram njaay muy xeesal ca kaw lax ma ne ko man da nga ma jaaxal yow lu ma la jox nga ne ma lii nangam lu ma la jox nga ne ma lii nangam waaw yow damaa gis yow bu ñu tëddee ma ginnaaw sa gannaaw gi day ñuul kurum sa kanam gi xong cur sa dënn bi xong cur te sa tànki daa ñuul sa gannaaw gi daa ñuul sa xotti taat yi dafa ñuul mun ne waay waay toppal fële ci yéen nu muy leerale xotti taat ma ne ko moo tax mu si ba dal la da nga war a xeesal taat bi yëpp lu leer kay fi poor a leer mu ne man noonu la ñu koy defee de man ni laa ko defee ma ne ko kon nag may naa la sa baat mu dem ma dem yéen nag dégg naa génn naa jigéen nu mu def rek ba bëgg jëkkëram jëkkëram bëgg ko baax na déedéet jigéen yett la mën a def lan na mu sóoru Sénégal léegi ngi ku ñaana ci duñ ko nangu ndax benn jigéen du mu sóoru da ngay fanaanoo sobe ñaan duñu ko nangu nu dikk ci borom mbaam mi ak borom fas yi mu ni yaay man da loolu jaaxal na ma yaay ji ne ko kon nan dem ke seen baay ñu ni jalañ ca baay ba daal di nuyoo salaamaaleykum baay bi waaleykum salaam daal di xool seen doom ju góor ji yor alal ji ca gannaaw mu ni jàll siréem naka mu dugg mu daal di wàcc borom fas wi ak borom mbaam mi song doom ji góor yor alal ji daal di koy foo di joor ak càmmoñ moo tax teraanga ku ko yàlla defal war ngaa sant war ngaa maandu loo sant sa moroom nga koy yokk mu daal di toog bàyyi bi ne ko toogal ci lal bi mag yaa ngi toog kat toog ci suuf rakk ji toog ci suuf yaay ji toog bàyyi bi toog ci tànk yi ñu toog ba yàgg mu ni bàyyi mu naa mu ni man sama yaay la àndal dañoo dikk ñun ñett ñi dañoo am lu ñu jaaxal yaay ji bàyyi bi ni ko lu leen jaaxal mu ne waa liñ jaaxal wax naan ko suñu yaay mu ne ah bu ngeen ko waxtaanee seen yaay laaj ma ko ma tontu leen di ñu ne ko kon nag yaay dana bëgg wax nu ko yaay ne ko man kay du ma du ma wax doon ay doomam dikki di ko laaj kenn ku ne yaa ko laaj li lay ak li lay jaaxal borom mbaam yi ni man day bàyyi damay laaj ba xam rek lu tax mam mbaam bam ne damay laaj ba tax mam moo tax gaaw wax baaxut damay laaj lu tax mam mbaam man bëgg naa jabar am naa ñeen fukki at ak ñett mënu ma am jabar bàyyi bi ni ko yow da boo amee mbaam rek a yem ci sa ndey la tooñ mu ne ko bàyyi nu ma sama ndey tooñe mu ne ko sa ba ma demee ci moom bëgg ko mu bëgg ma nekk moom ndeyam dañoo politique an bëgg maa nax moo tax ñun ñi fi mu ne dañu politique di naxe di naxe di naxe bale xaalisu góor su ko defee nag dugg ca mbar moo xam ni du am njëgu caaf du am dara guddeeg ba ci di toroxal ñu na moom di jëkkëram ji bëgg na ko waaye du ko defal dara fekk nag denc ne mbar mu koy xawar yi loolu alkande la yëkkati ki nga xam ne bii mën na laa yor yenn la attan la yaag sa ndey waaye yor ponkal moo xam ne bii su bët seetee mu la yoruma dara de yoruma dara daa yorum sëy yoruma dara kay alkande góor la ak jigéen jigéen doo xam ne bii yoroo nga am dara dañ la ko may loola këndeel da ngay ne ci musiba ba dee dem soore seetal ko laatan mu yenu la foo bëgg mu yóbbu la fa yaag bokk ak say nawle waaye doo ko def yambar moo xam mun tam digu caaf dikk naan ak eh, gel nag ma këral mal buro quoi mal buro mooy lan moo tax doomu aadama dañoo réer man bu ma doon jigéen du ma boole jox la sa bopp jox la mal buro déedéet da nga may jox kay ma jënd mburu jënd lekk jënd yàpp jënd lu ma lekk waaye jox la sama bopp nga ñam ba doyal ma dindi maal bu la jox la loolu kay am yàmbara koy def moo tax jigéen ñu jëkk ñu bokk ñu mujj jigéen ñu jëkk ña dañ daan jox añ jox reer jox ndékki joxam kodd tëdd bu ñu tëddee ci lal bi ba seen jëkkër seen jëkkër tëdd ak moom ñu am doom ju baax waaye léegi comme mbaam yi xar yeeg fas yeeg nag yi moo tax mu ba dal leen waaja ni ndey ja man de yaay damaa jaaxle yaay ji ni ah, laaj ko <coughs> ba ni ko waaw looy laaj mu ne ko li tax mam baam rek yem ci ak li ma def moo ma naqari bàyyim ne ko si yaay la tool mu ne ko nu ma sama yaay tooñ man may doomam dib taam war na ma am lu baax kay mu ne ko laajal si yaay yaay ji ko du ko wax koy wax mu ne ko ma ma takkee sa yor ko di ko séetal ba ciit ga tas ndeke a naag ndeyam ndey ji ne ko boo demee bu ñu séetalee guddi gaaw bët sedd di dimanche ca fayu dimanche te na nga daw wala guddi dimanche ga jigéen bu fayee dimanche ku ko fay li dee jigéen bu fay dimanche su ko jëkkëram fay li see bu ko fay li see doo dem te boo di mu dee bu la jàmbur fay li see boo boo doo dem te boo di mu dee loolu moo waral jigéen ju fay dimanche kenn du ko fay li borom xam-xam xam nañ ko waaye duñ ko wax man mi ko wax nag ëllëg mën nañu maa jëpp waaye man ku ma jëpp man yaa ngi mbaam mu dee laa yemale ndaw suñu mu def daal di bàyyi bi ni ko sa ndey jii moo la tooñ ba mu tëddeeg man ba guddi gi xaaj topp yi dem mu tëdd man dal di ni ñoo ket nag woddoob sërëm lamboo mbalaanam ni ma man dey damay dem coono wa ma dafa day dem coono wa ma bàyyi ko mu génn ba toog ay minute gisuma ko ma wëlbatiku yëguma mu yëngu ma daal di génn séen ko mu nekk ca sàkkar wa di dindi koñ ba bu di xer ba ba sanni ko dagg per ma di daw ba mu dawee nag ma dàq ko ba ma ko dàqee ba jub ko padd ko mu daanu ca kaw sën ba ma tëdd moom ca kaw sën ba nga juddu mbaam rekk ngay am doom ko daal di sëgg ànd ko naqar ma xam ndeye ma ko tooñ mu ni borom fos yi yow looy laaj borom fos yi ni ko damaa war a noppi mu ni ko bul noppi laaj ma mu ni ko dama lay laaj lu tax mam fas mu ni ko sa yaay ji ba ma nekk moom ca tool ya di bay ba tool yi ba baañ jot mu toggañ indil ma maañ ba noppi ma fa gopp bi samp ko ni ko toogal ci fas si xaar ma dafay taw ma dem gubi ba ma gubee ba dikk yenn ngub ma ba ma dikkee fekk mu takk fa soo dem ma yenu sama ngooñ ma sama ngub ma dikk ca kër ga ba ma dikkee yenniku yenniku ngub ma ñàdd ko am lu ma naqari lool coono ba jàpp ma ak pënd ba ak tilim ba ma tëdd ci kaw lal ba sa ndey ak reer ma mer ni ko duma reer ma ba guddi gi xaaj sama xel dem ci sa yaay ma tëdd moom nga sosu ca ba nga ca sosoo maam doom ak yow doom jooje mooy yow fas fekk nga am doo ko peese ñoom nag doomi aadama du ñu ko mën a xamee loolu bu ñu ko am yu noonu légume day añam doom borom fas si moom ndey ji daa teral baay bi mu daa borom borom alal ji ndey ji daa teral baay bi mu judd am doom ju baax doom ju baax jooju maam nag légume day añam doom noonu lay mën a amee moom am na alal am na jabar am na ñaari doom am na ñetti doom yéen ak seen doom yooyu ngeen di am bu ko teg ni ngeen ko war a amee kon ba tey nu del si waat ci aaxuru samaan ay jullit ngeen naka ngeen di doone ay jullit l'islam ji ni mu baree am l'islam ju bari ja yéen ngeen rey alxuraan rey jabar ju dagan mbaadu seen jàkka yi seen nodd yi ak seen julli ñu naan diine ji ni mu baree waaw waaw diine murid diine tiijaan yéen jàngu leen murid amul diine tiijaan amul diine diinukum indallah moom la yàlla wax isa ja nasullahi wal fatu warayta naasa yadxuluuna fi dinillahi afwajan déggoo fi diini murid déggoo fi diini tiijaan murid yàlla koy fay tiijaan yàlla koy fay waaye bañ ngeen da ngeen di nodd du ngeen nodd mukk dégg asar dana Mamadu Bamba ni ngeen di nodde du ngeen dégg mu ko nodd ashadu an Muhammadu Malik ashadu anna Muhammadu Rasulullah ngeen di nodde waaye léegi Sénégal nodd yi comme mbaam yi ngaax kubar ñeen ni yaa ashadu an laa ilaaha illallaah da nga naa ashadu an laa ilaaha illallaah hayya ala salaa waaye nodd na kubar kubar mooy lan da ngeen di yàqal islam bi rek te boo ko waxan àllëg am noddukat mu mer nodd bala ngay nodd da ngay summi sa mbaxana nodd bala ngay nodd dangay ngay jàpp nodd boo rey jaana booru laa nodd mbub mi nga sol waroo ko yor laal sobe di julliwaale mbub mi wala nga di ko noddaale da ngeen a tegul fenn diine yéen a ngi nii weeru koor ngeen ne ñu baree baree baree baree baree baree soo xaajee Sénégal ñetti xaaj benn bi wari na benn baa ngi bëgg a wari benn baa ngi woor négal ba dem ci passion weeru koor boo duggee ci biir passion ba day mel ni kenn wuur palaat yi dañu rangal ku nekk naa jaay ma palaat génn ni fu palaat naan pot ndox ngàdd sa guro yëy yëy sa sox sab cigarette génn ak fopp say tuñ mel te ko def di tifli rek tifli te loru weeru koor te xuta woor yàlla nee na munu leen maa réer munu leen maa nax isaa ja nasulahi wal fat warayta naasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan daal cee teg sabbihisma rabbikal a'laa lazii xalaqa fasawaa la qaddara fa'adaa walazii tarajjal mar'aa faja'alahum xusnaa ma'waa saani xoro ko falaa tansa illaa maa shaa Allaah innahu ya'lamul jarra wa maa yaxfaa daal di tàmbale ci kaw xool bi lu ci xew xam naa ko nahnu aqrabu ilayhi min abdil wariid yéen nag lànk ngeen lu leen neex ngeen def lu leen neex ngeen wax ko dee ñu ne àjjana àjjana mën a borom yéen a ngi nii musiba mu bon mu ne xewal ngeen ko Sénégal dootu leen ngénte ne laaj Malick dootu leen ngénte ni Limaamu Laay dootu leen ngénte ni Ablaay Ñang wala Falu Njaay wala Mbay Donde yéen Sénégal lu bon lu ne dañ koy xewal xewal nañu fi ngalañ lan mooy ngalañ doomi xaraami ngalañ xewal nañu fi istati mbaras wax naa ko ca bandi bee xewal ngeen fi dégg am lu neex lu moom daal lu ne xewal ngeen xewal ngeen si rappaajo rappaajo mooy lan rappaajo kay mburu ak suukar soow doy na ci waaye rappaajo ak ni naa ngalañ di ni naa ngalañ boo dee ngalañ yàlla na nga fa dee ba xam ku koy yëg dafa ngeen ni loolu la ñu naa diine ji ñu naa diine ji di ñu naan waaw waaw nodd yi bu nit dee ñu tagge ko senegal Côte d'Ivoire Gabon Congo Espagne Touba Mbacké ki pays bi l'islam ana lu ñuy wax xoolal noddi Sénégal yi boo toogee guddi ci biir Ndakaaru ñaari junniy nodd di nga ko dégg te Touba Mbakke gën a am fay ay fan bëkk de bu yóbbu ndogu bàyyi ko fu ñu wax Louga jaar Kébémer jaar Daaru Musti ba nu cëppeeloo Madiyaana kër sëñ Modou Ablaye Fall général Baye Fall yi di jëriñu sëñ ñëpp sëñ Saliou Mbakke rakki moo deminte moo deminte di kilifaam mu yor baatu Cheikh Ibra Fall xam ne Cheikh Ibra Fall mu sotti la di denc ñaari soxna Mbakke Mbakke kenn ku ne sëñ Touba jur ko même Adam dellu même dell dañoo xamul dara waaye ban fa toogee ana nattukat ba jàkka ji sëñ Mamadou Bousso wala kañ yobal muy yor ci càkk ja wala sëriñ fay daf ni jóg leen waaj jóg leen waaj jóg leen waaj waaj jot na jóg leen waaj waaj jot na waaye ndakaan ba di ku ne ah, ku bar loolu nodd la nga di ko naan ah, akbar ah, akbar yàq lislaam rek la waaye du diine noddkat bu ma ci mere nag mbedd mënu daje maa yow ci Sénégal booy boonu xeex dem police mbaa gendarmerie yàlla da ngeen a bëgg lu baax yàlla bu ngeen bëggee lu baax yàlla li ko gën a bëgg borom réew mi ak Serigne Bamba ak El ni ñu bëggee lu baax noonu la yàlla bëggee lu baax kon nag bu ngeen bëggee lu baax di ko def dageen di wax lu baax allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah waaye noddu ne akbar akbar asatan asatan mooy lan asadu mooy gaynde kuy nodd ba yaa nga naan daw leen gaynde ngoon nag jàkka ja kenn du fa ne loolu mooy yàq seen diine bi moo tax ngeen war ko rafetal lu rafet lu ngeen a bëgg lu rafet gënu leen a bëgg yàlla rafet lu tax loolu mbubb yi ngeen di xewal di ko dog taar bee tax ngeen di ko dog sol mu rafet foo jëlee ñu ni kii mbubb mi na mu rafete Sénégal na kenn du yor lafet boo dee oto bu rafet ñee naan muumu ko da ko àbb ngor oto bu rafet say noon naan eh, xant la de naan da ko seereer waaye baaxut ñu naan ah da koo leb de dama leb ginnaaw dañ koy leb dama leb ñu naan ah moomu ko de magama ko moom mbuumu rëy boo ko solee dañ naan da ko àbb de boo solee mbuumu rafet xotti ko dem ci bitig ba ñawlu nga xotti ko sol ko mu mbuumu rafet nga sol ko di waaxu di dem ñala bañ dañ naan xoolin waa ji piisam bi ni mu rafete ñu naan rafet na da waaye day furi ñu naan tayoor bi ko ñëw da koo saboote nu mu ko saboote nu baat bi dafa weng mbubbum baat mu weng nan lay wenge moo tax Sénégal loo am ci lu baax buñ ko mënee yàq-yàq ko dañuy yàqante di liggéeyante di xaatimante di laarante l'islam bi sax dañ ciy kontarante waaye nag man li ma ciy teg mooy dëgg rek guleet Sénégal weeru koor ren ñu ma sa bokk kumte dee leen bokk weeru koor kooru murit amut kooru tiijaan mut koor yàllaa ko moom yàlla mooy fay koor sëriñ Tuubaa mais yàllaa koy fay alaaji Malik yàllaa koy fay yéen a nangu leen loolu da ngeen a bëgg murit dem àjjana tiijaan dem sawara wala tiijaan dem àjjana murit dem sawara yàlla ne murit ak tiijaan ñëpp Malik moom ku ma ragal dem àjjana ku ma tooñ ma tabal sawara inna akramakum inda la atqaakum ku lu seri sarifan ku jub de àjjana ku dëgg dem sawara inna labraar la fi nahim na inna jaar la fi jahim yéen nag dégg naa jullit ngeen waaye lu leen neex def ci lu yàlla bañ lu yàlla bañ li mu bañ mooy lan biiral lënt bi ngeen war a bàyyi wax naa ko ci bànd bu njëkk ba ni yonent bi ne mujjug jamono doomi aram day bari mujjug jamono di nga fekk buntu kër ku ca kaaliwu ni këëm fekk doomi aram la ñu ni ko nabi lu tax mu ni doomu doom doom ñu mujj jamono duñ nangoo takk jabar fukki waxambaane kenn ku ne biiral na waaw fukki waxambaane ku ne biiral nga waaw fukki waxambaane dégg nga maam kenn ku ne biiral ñu ni kan la biiral ñu xanaa na koy waaw ndakk nag ñu ni tëkk ko di moom kay dañoo bëggante donc ñu ni bëggante ay waaye ginnaaw bëggante nañ ba mu tag ko ba mu ëmbal ko kay nañ ko ko may ñu ne waaw waaw yàllaa ko dogal di déggal la ma naan ci bànn bu jëkk ba yalla yàlla dogalu ko li ma mën a waat bu yalla ma numéro téléphone da ngay ko téléphoné ni yàlla wàccal man de boo ma numéro téléphone sama rajo bii ma yor di ko conférencier jënd ko ñaar fukki junne ak juróom par l'heure bi ma jënd ko fukki junne ñeent dinaa jaay rajo bi jaay par l'heure bi téléphoné yàlla mu wàcc wàcc ma dem ca jaaykati yet ya wut fa yet jox yàlla yet yor aw yet kër gu ma dugg rek ni ko dóoral yàlla tàmbalee dóor ndax yéen bëggu leen dëgg caga ju ndaw jàng kenn bëggul jëkkër kon ni naa la takk mu ni takk teel na man damaa waaru waaw takk nu muy teele te ñam teelu kon naa la ñam mu ne ma de bëgg naa la dee ma toppatoo rek ba ca kanam ngay toppatoo di ñam rek bu subaa nga ñam ngoon nga ñam yor ñam ba biir bu biiree ñu ne ginnaaw biir na nan la ñuy def ñu ne xanaa woote waxtaan ñu daal di woo caga ju màggat ji bàjjen sooda ca bu njëkk ba rek bàjjen sooda ndey xuja tànt màggat caga ja lambar lambar yi salaamaaleykum salaamaaleykum nañu woo mag ñu góor ñi ñu daal di woo mag ñu daal doxaan salaamaaleykum Baye Ibra Ngom nijaay Baara Jaw papa Moustapha Guèye nijaay Ibra Jaw papa Baara Wade nijaay Cheikh Gadiaga papa Mor Diop ñëw leen wuyu papa may Safaal ak nijaay asan Wade ñu dikk ni gum loolu a ajund yàlla looy wootee ñu ni bàyyi moor loo ci xam mu ni loolu amul solo yàgg na fi yàgg na fi xanaa yaa ko fi defal bi ngay gone loolu la tax musiba dal nu caga ju ndaw jaa ngi nii ko naa la takk mu ni takk na waaw takk nu muy teel te ñam du teel takk kay wax dëgg yàlla salaamaaleykum tey mun laa takk tey salaamaaleykum ñam tey lii musiba la waaw looloo tax musiba dal leen man de mënoo maa takk léegi nag waaye man ngaa ñam bu ñamee lu muy takkati man de bu ma xasee ñam duutuma takk maa la ko wax de ginnaaw xës naa ñam waaye ku dem ci passion kay salaamaaleykum ñu ni maaleykum salaam nga ni palaat ñaatu ñu ni palaat trois cent nga ni neex na ñu dindi dimi palaat jox la ni lay ñamal nga ñam boo ñamee kay dimi palaat boo goree war ngaa naan pot ndox rek rek dem si yoon doo jëndaat waaye ma ñam ñu jox la ni palaat nga na doon jaay boo buñ la jaay palaat doo ko lekk loolu kay musiba lay jur yéen nag musiba leen dal léegi nag moo tax caga ji kon naa la takk mu damay noppalu te koo ci dégg mu naa damay noppalu boo ko fëggee minuit da nga fekk ponkal màttan damb ak mango la ma la bànd bu jëkk ba rek ponkal mu day ni bàyyam nangul ko ko takk bu ngoonee ñu xaw ko rey moo tax na bi ni mujj jamono doom jigéen dina womat ndeyam ak baayam tàbbal ko sawara bu leen naqaree dem leen bàyyi leen yu bon yi taragal yàlla te jaamu yàlla yàlla moom moom ajjana ajjana bale ak kenn dem da nga wax yàlla lu ko neex xoola Abdou Diouf mi président borom grade bu fort bi xam ni moom du président Sénégal dong yem ci président de monde la ndax man gis naa juróom-ñaari garaatam yu am ban def na fi président Ousseye mboolem président monde yi ñaata la at mañ ko ko defee soleil bi génn ma jënd ko jàng ko téeméeri président ak fanweeri président ak juróom-benn moom la Soleil wax Abdou Diouf ay seen kilifa kon kay kooku président de monde la yéen koo xamut waaye garaatam foor na yéen nag xamu leen dara lu yéen xam yéen daal bu leen nee xaa nañ jox njaga càmm réew mi nañ jox mbay wadd réew mi nañ jox oustaz Seck réew mi waaw kàttanu ab quartier noo yore am réew yéen da ngeen a xam li ngeen di wax bala ngeen a jox am réew nit dangeen di xam xam-xamam. xam dara jaam xam man-manam fu mu toll ngeen door koo def waaye yambar moo xam ni kër ga mu yor mun tam saab bu mu fóoti mun tam dépasse bu mat su ne lell balaa dikk tam lu war a mat yaari weer wala weer wala am at kooku ko jox am réew mu yor ko wala ngay jox ko kër mu siibam yéen yéen a xamul dara ki nga xam ne bii suba yaa ngi koy gis ngoon yaa ngi koy gis yor-yor ci suba tëkku saan mu ne ci kër gi lu xew moo ko xewal lu moo ko amal dëgg-dëgg kii daal ku ñu munteer kër munteerum réew yaay jaxase waaye mën naa yor lu man nag du ma am dara lu may wax. lu dul leen wax dëgg dara ngeen ci dul man bëggu leen dëgg tey bëggu leen dëgg suba kon maa mayi leen jigéen ñi ñu am jëkkër na murit bu jigéen am jëkkër murit tiijaan bu jigéen am jëkkër caga ji kenn mënu koo jel sëñ Abdou Lahat mënu wax na ba dem sëñ Saliou muy mag muy rakkam mënu ko caga ji ñaar doo ko mën a jeel ñan ñaar yàlla gën a yàlla di juuf li ma mën a waat barke alxuraan bu neexan yàlla suba ci dimanche ci balaa minuit caga jeex bu neexoon Abdou Diouf tey jii ci samedi gi balaa minuit caga jeex bu yàlla doon def kër gu ma dugg fekk ci ñaari caga mu rey benn ba bu reyandee la yaa si ni nañ ma maye waaye bu neexoon Abdou Diouf secrétaire de monde chef de l'état roi d'Afrique maître national bu yëkkatoon baatam ni sénégalais sénégalais. musulmane, chrétienne, africain toutes les personnes, c'est pas mariage pour femmes. Dixième raison, article mariage, loi des femmes. Toutes les femmes, c'est pas sûr qui rite ramassent. six à la manne 6000, un an prison terminé. Attention, une fois, respecte la loi, terminé. Kon caga ji jeex, bàyyi laat moom mi ñaari tim ñu naa ah, bàyyi laat dafa tàngoor ñaari téeméer tuuti na te gone góor yaa ngi ñam ci kaasi attaaya ñu ngi ñam li ci ay Marlboro léegi naa ñu nan naan Marlboro Marlboro mooy lan ak naan piita piita moom caaga bu koy toog fokk nga piita damaa dem buntu duusu kolobaan dugg ci benn duus ba ma duggee ci duus ba rek daje benn caaga boo xam ne bii damaa génn rek sekk dama doon dem dus dama ne ba ma waxee loolu kolobaan benn waay ne ma <laughs> loolu leen wuti dus ma ne ko la fa sa bàyyi di wuti laa fu doon wuti sa bàyyi daal yonkani wala may <laughs> jonkani mu ni daal Papa Assane Seck lu la ma ne ko damay wax dëgg di ma dugg ci dus bi fay fukki dërëm jonk na ba noppi génn naka ma teg sama tànk ci bunt bi rek dajeeg càkk boo xam ne ni mu rafete ndaw seni ma ni ah waaw lii nag mu ni ma ah lu mu doon ma ne ko du man de mu ne ma ah du man mooy lan ma ne ko waaw ñaar kay mu ndaji si bunt dara jib da ngay xam ni du man man de du xam naa ni man doxatuma de mu ne waay waay papa ji ma ne ko déet duma dem foo jëm mu ni ma si duus bi laa jëm ma ne ko ah man de dem naa ci duus bi ba dëpp léegi nag damay wax nun ñaar rek li yëngu kan moo ko ngën mu ne waaye waaye papa ji demal xam naa ni man a sama morom bàyyi nga ma ne ko mu ngoog nag kon sama morom bàyyi naa nag du ma ko yóbbaale moo tax senegal man dañu maa jaaxal bëgguñu dëgg te di julli rey alxuraan rey jabar ju dagan jigéen bëggul jëkkër góor bëggul jabar caga ju mel ni coggal ak man looloo ma jaaxal ci yéen doon leen di julli te bàyyi pomi jaamul ni yàlla ta bàyyi pomi jaamul yi yàlla te bàyyi yu araam yi jaamul ni yàlla te bàyyi lu ñaaw li ngeen di def att ngeen reyante liggéey baa ngi ni gadd ñeen di xaatimante di laarante di béjjénante di fasante lu bon lu na ngeen di ko defante su ngeen ci jógul ko ci faatu da dem sawara yéen a ngi ni kenn ngu la dem sawara waaw yara ngeen jëf kon nag sa borom dogal na foofu la histoire bi yem noo ngi leen di ñaanal ah sama xarit boo ñu wax nag sëriñ Talla moom la ngi ni kenn ngu la dem sawara waaw jërë ngeen jëf kon nag sa borom dogal na foofu la histoire bi yem noo ngi leen di ñaanal ah sama xarit boo ñu wax nag sëriñ taala Diagne moom lañ ko doon defal